Ndeya voilà nga indil ci actualité du jour. man bi rek euh, Souka Mbaye ndax ku ne xam ne ni euh, ministre Alioune Sall euh, daal dinay génne liste yi nga xam ne ñoom ñoo conformé wu à la nga xam ñoo conformé wu mm-hmm. waaye nag dañoo nemmeeku ne 7TV bokk ci moom nag dañ koo daal di recalé ki nga xam ne rek moom moo ko moom di Maimouna Ndour Faye génn tey def daal di jàkkaarloo ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy taskatu xibaar yi. Mm-hmm. am na lu bëri loo xam ne expliqué na ko waaye nag la nga xam ne moom la ci jël as rek mooy lu jëm ci mbirum télé bi Euh, Prodac nee nañ nag xaalisu Prodac euh, moom moo tijji euh, télé 7TV boobu li moom may mun a tey nag indi na ci li nga xam ne rek moom mooy leeral xaalis boobu ana nan la demee topp su baaxee rek nga daal di ñu may élément bi. toog di naan télévision bi xaalisu Prodac la ñu ko tijjee. ma def une stratégie de communication boo xam ne tous les médias <laughs> ànd nañu ci ñu ne ma may mun a organiser ñu un séminaire d' imprégnation des médias sur le Prodac. ma organiser séminaire bi Ngor jaaraama ñoom ñëpp ñu contracté ak ñoom dañ leen fay ñu yónnee seeni nit ñu def séminaire un jour une journée entière ñu yóbbu leen Itato ñu yóbbu leen euh, CFA ñu yóbbu leen Kër Momar Sarr tout ça c'est mon agence qui a ki a qui a pris en charge ñu fay ñu 62 millions 63 millions TFM rek fay naa ko 9 millions <laughs> Sen TV 2 millions Walf 2 millions 900 ak ñeneen ak jeneen ak ñeneen tous les documents transmettre naa ko ñu def un pré rapport pré rapport mooy ne ñi ñëw càmbar càmbar nañu nee nañu ah lii kat leeru leeral ko man maa jamais demandé ma leeral dañ ma woo laaj ma ma joxe lépp ñu ne ma c'est bon ma xëy gis un pré rapport ak maa yàkkamti woon. bés ñëw ñu leeral mbir moomu leeral nañ ko yaay une enquête boo xam ne DIC moo ko mëne yóbbu naa kayit yëpp tous les justificatifs ils se sont même étonnés pourquoi ñu may tudd ci mbir mi au jour d'aujourd'hui sama yoon nekku ci bokkuma sax ci dossier pénal bi on m'a juste ma indi justificatif yi ma indi justificatif yëpp ndax média ya fa demoon yëpp seen facture ak directeur commerciaux ya ma waxal ak journaliste ya couvrir rek lépp laa leen jox ñu génne ma ci ba ma set wecc ña daan toog yor seen gémmiñ di ngaw ngaw yi bëgg a suyee moom mérite yëg nañu ko duñ ci wax duñ ci revenir parce que les gens aiment suye le mérite des gens merci beaucoup euh, Top di ko jaajëfal bu baax a baax Omar Bun Xatab Gueye kon euh, li ñu doon wax ne 103 millions yooyu la ci la ki nga xam ne mooy a Ndour fay daal di ubbi euh, telem bi li ginnaaw boo may mun a waxi mooy que TFM am na ci million millions Walf 2 millions 900 ak télévision maanaam daal tudd na naka nga jàngati lañ doon wax ak moom li mu expliqué tey. Ah, moom ay la. Mhm. dama ko koy bàyyee quoi. voilà bu côté boobu du ma ciy sori Tek TV lan moo ko jur kan moo nekk ci ginnaawam. Mhm. ban xaalis la yooyu moom du mu ci. te nee mbir mi aussi mi ngi ci yoon. mi ngi ci ah, dikk joxe na comme ngi ci juste yu mel ni yu bari. Mhm. moom dangay bàyyi noonu. Mhm. te pour man may mun a état bi tànn na ko la perche quelque part. Ah pour dimbali na ko quelque part. maanaam bi ministre bi génnee démb. boo jàngatee parce que Maimouna mi ngi nekkoon mi ngi amoon benn dossier ak euh, famille Ousmane Masseck Ndiaye LCS ak yooyu. Mm-hmm. dossier boobu kenn xamul woon fu mu mujj am na ñu doon wax naan danoo war a arrêté cette TV dañ ko war a lii maanaam dossier boobu état bi pour man dimbali na may a pour mu déplacer ko. déplacer ko yóbbu ko ci beneen niveau tey jii mu ngi lay indil Prodac. li ministre bi wax sa si usala alors que tey jii état bu ko bàyyi woon dossier boobu rek pour man. lu xew rek ñu xam ne nit la joteel ñuy xëccoo benn mbir ba yoon dogal ci lu mu dogal ñu jëfee dogalu yoon. Mhm. bu boobaa état dina gën a mën a raxasu. loolu tax démb ma bokk ci ñi gëmoon ni génn ministre bi yàkkamti da cee amoon. te am naa ci raison nag. Mhm. ci li ma jàpp parce que mbir bu leeree kenn du leeral. Mhm. dama gis directeur de la communication ci ngoon gi dem RTS. bi mu demee leeral. mbir yi dugg sama bopp. benn directeur de la communication professionnel la jàng na communication gëm naa ni moo gën a maîtriser sax ministre mbir yi mais aussi jël na temps wu wax lan lan moo xew dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg alors que ministre bi wax na ba daanal dara leerul maanaam man li leer woon sama bopp directeur de la communication ñëw na leeral ko te pour man kilifa noonu la kilifa ay waxam du des boo demee ba jug di wax rek na wax ji egg parce que bu eggul rek mën nañ ko interpréter mhm. ma xaw a nangu ni état bi mi ngi expliquer te li ñu bari di xalaat état bi du egg foofu mooy tëj presse. non waaw man gëm naa ko parce que boo déglu directeur de la communication te man sama xeex yëpp loolu la parce que man li ma gëm ci àddina mu dem maa ngi koy wax son bu dog moom mooy Sénégal daam fu mu jugee côté communication ñu développé ci ba egg niveau bu kawe. voilà pour man waruñu wàccaat ba egg ci nii. mu ngi tëj télé man way woowu bugguma maanaam Macky Sall am way wu ko topp. mooy moo njëkk a jël signal Walfadjri dafa ñaawoon parce que nit mënul woon comprendre état di nangu signal télé. ok mais ma revenir aat un peu hmm. nga baal ma nag ci mbirum Prodac bi parce que moom d'après li mu wax mooy que am na ay journalistes yoo xam ne yëg nañu mbir bi nan la demee. ci wax mbirum 103 millions te waxuñu ci àdduwuñ ci defuñ dara. non non xamoon euh, Prodac. comme hmm. affaire la bu nekk loxo justice. may mun a mooy wax yaa ngi gis xam na kenn wax di taxal sa bopp da ngay wax pour ragg sa bopp affaire Prodac. ñi ko lijjanti na nga ko lijjanti diggante moom ak journaliste yu mos ak yu mosul ñu wax ak ñu waxul loolu c'est entre ñoom. man loolu du mu ci dugg affaire Prodac ak yooyu. Mhm. mais man dafa am rek benn position de principe. Mhm. mooy ku jaarul yoon na nga jubanti ku jaar yoon mais tëj presse maanaam egg ci niveau boobu way woowu laa bëggalul Ousmane Sonko wala Jomaay parce que way woowu ci quelqu'un boo xam ne da nga nekk combat de libération maanaam Sonko bu ñu ñëw nekk benn genre Nelson Mandela di libérer sénégalais may leen ñi naan moo taal xel yi yeewi askan wi maanaam boo demee ba jox ab askan ak fi ñu makki tëjoon mu ñëw tëj ñu fa génnee fa waratul jëf jëf ju ñuy dugal ci loolu maanaam même bu koy def te am dëgg sax mais way wa ëllëg mooy moo tëj télé bi moo tëj lii moo tëj lii moo tëj lii man foofu la sama xel di dem ko yéene gën boobu parce na ba pare loolu waru ko yàq léegi nag média yi bu ñu waree wàccoog yoon wala ñu war a ci yoon wala ñu war a def li ma jaaxal ci kaw may mun a tey bu mu ko doon conseil dama naan ko mu daal ok mu dal. waaw parce que état ak euh, entreprise mi ngi mel ne nen ak xeer. parce que li may wax ni dafa am benn koo xam ne Walfadjri la bokk fii bi ñu tëjee Walfadjri mhm. dama dajeeg moom fii ma ne ko bu ma sañoon mbir mi du lu ñuy lijjanti ci plateau télévision wala rajo dangeen koy lijjanti ci suuf parce que état ngeen li lii ngeen dem waxtaani may mënoo bi mu ko doon xelal dama naa ko mu dem waxtaani parce que li ko dal yat bi du moom rek la dal dal nañ ci ñu bari te ñooñ ñi ngi lijjanti seen bopp ci suuf pourquoi moom mu génn porter le combat devant est-ce que nekkul ni dafa bëgg a politiser mbir mi aussi tamit ba ëllëg lu xew mu ne politique la pourtant am na lu mu joteeg famille Ousmane ma Ndiaye. ok te loolu aussi tamit bu ñëwee mun na doon ay conséquences yu douloureuses ci moom. mu ne non comme may nan ma occasion pour ma politiser ko xaar ma déplacé débat bi yóbbu ko feneen foo xam ne nekkul foofu pour man looloo tax. ma doon wax démb ci ministre bi maanaam pour may may na may mun a fu mu téye pour xeex. voilà merci beaucoup Omar merci Omar. Mhm. Euh, Moodu dafa mel ni que nii euh, may mun a tontu na euh, ñi nga xam ne ñoo doon wax que ni son 3 millions yooyu ci la jëndee wala ci la amee li nga xam ne moom mooy 7TV d'après li mu expliqué. ak li nga jotoon dégg ak li tamit li am ci maanaam espace médiatique bi nan nga ko gisee. waaw dossier Prodac de. Mhm. dossier bu ñëpp xam la. ñu tudd ci ay nit ñoo xam ne dañoo wax ne ñu def détournement moom mi rapport cité woon ko ne dafa jël via Locafrique 63 milliards 63 millions mhm. léegi loolu moo taxoon ñu ci tudd turam pour man bu ci génnee wax ci jaadu na mhm. ndaxte euh, rapport bu ñu bind sa tour noir sur blanc ne jox nañ la 62 milliards te rapport bi nekk sur 29 milliards mhm. pour man boo ci amee loo ci leeral waroon nga génn leeral pour man nag waroon na ko def bu yàgg ndax dañoo nekk ci réew moo xam ne euh, weddi du ragal. mais setal sa der la. Mm-hmm. léegi nag comme dossier bi agsi na fii mu communiqué ni mu ci communiqué nii damay jàpp ci li mu wax ndax ndaxte ñi ko mun a weddi ñu ngi fi. Mm-hmm. bu ne 63 milliards millions lañ ko joxoon pour benn campagne mu jox Futurs Médias 9 millions. millions Futurs Médias nañ génn mu ne jox leen 9 millions. mu jox Walfadjri 2 millions 900 Sen TV 2 millions nee na yor na facture yeeg yëpp. pour man loolu lu ñu war a leeral la yemu ci mu ne. dossier boobu fi mu toll nii enquêteurs yi nee nañ ko yow mënatuñu la cee topp dara loolu information la ndax information bi nekk ci biir mooy kon dossier Prodac ñu ngi nit ñi ñu ngi wuy ji te kenn yëgul xam nga jàpp nañ ne coordonnateur bi jàpp nañ ko ba mandat depp ko ba ñu ne dafa feebar nangam. Mhm. kon cela veut dire que dossier bi mi ngi nekk en cours mais dossier nag bu ñu ci tuddee wax dëgg fa yàlla ñu dem ba ci kanam ñu setal la ci dañu war a taxawaal ñu ne diw setal lañ ko ci ndax moom li muy wax enquêteurs yi ñu ngi dégg. c'est vrai que demaguñ jugement mais ci enquête préliminaire yi mun nga xam ndax dañu lay toppee dara wala duñu lay toppee dara parce que bu ñu lay toppee dara dañu lay ne la yow dañuy retenir charge yi envers toi léegi bàyyi nga comparaître en liberté wala dañu lay mettre mandat de dépôt mm-hmm. loolu yëpp enquêteur dañu la koy wax mais bu ñu demee ba enquêteur yi xam nga dama laa déglu xaaral dama laa déglu waaw dama laa déglu dama laa déglu dama mm-hmm. euh, bi mm-hmm. police bu la chargé wul dara juge bi du la chargé dara dama bëgg ñu leer nag juge bi ci PV police lay basé wu dëgg loolu dëgg mhm. juge bi nag bu nekkee dañ ko yóbbu en instruction juge bi mun na jëlaat yeneen magistrat ñu wala yeneen ins commissaire wala yeneen nangam ñu defaat enquête mhm. mais ci PV bi juge bi yore ci la ñuy def enquête bi te moom nee na inspecteur bi notifié ne ko ne ko amatuñ dara li ciy topp damay jàpp ci loolu léegi nag moom àgg na sax loolu de la nee na bu procès amatee dootul comparaitre en tant que acteur mais day comparaître peut-être en tant que témoin loolu kay wax bu leer la kon dañuy jàpp ci loolu comme tuddoon nañ ci turam ba agsi ba fii nii mu génn def leeral nii damay xaar ba gis génn ku weddi ne li mu wax noonu fay ko ci média ñoom bu génnee wax ci nag après ñu amaat ci benn analyse mais comme loolu foofu la ci yem ñu tamit foofu la ñu ñu xam ne kon dossier Prodac enquête bi mu ngi nekk ci suuf xëñ dañ ci waxul voilà sa mm-hmm. déglu nga li Maimouna Ndour mm-hmm. Faye wax euh, nan nga jàngatee kàddu yi ak médias yi nga xam jot na leen tudd ci mbirum 103 milliards million yi autant pour moi waaw xam nga man de bu ma ñëwee ngir euh, tappale man mm-hmm. ma ñëw ne damay tappale su may wax dama naan am na ñoo xam ni am na ñoo xam ne jox naa leen ci def naa lii def naa laa def naa la loolu mooy kuy tappale man noonu laa gisee kuy tappale du ñu tudd tur mais boo nee diw diw diw diw kii fay naa ko ci lii kii fay naa ko ci kii fay naa ko ci lii loolu du tappale waaw ah, loolu moom jàpp naa ni la nga xam ni moom la jël wax na fi mu ko dugal parce que ñëw accuser ñoo xamante ni mi joxu leen te ñoo yor ay rajo ki télé ni moom <laughs> du rek ñoo xamante ni bii nee na ñii ak ñii ku ne jot nga lii mm-hmm. loolu jàpp naa ni wax la ju wér moo tax nag mm-hmm. ma jàpp ni bon maa ngi koy wax kii ma ne ko jàpp naa ni may mun a bon mu combat bi mu dugg nii jaru ko mais bon tey dafa mel ni lii moom jar na ko lii mu wax nii parce que lii lu leeral il paraît que sax wax na ba wax ñi nga xamante ni bii dañ daan dañ leen doon ñamal ca waxaat encore ne bokku ci te ku ci xam dara defe naa na ko wax mhm. du dëgg kon donc xam nga moom am na lu bari loo xamante ni bii nit ñi tuumaaloon nañ kii woon nañ ko ko mm. maanaam tey am na occasion maanaam affaire wu kii bi pour man sax finalement dafa dem ba bu jógi mu nekk lu gën ci moom parce que permettre na ko mu communiquer ak ñi nga xamante ni bi ñooy euh, nit ñi maanaam tey fi wax fi mu jotee wax na am na loo xamante ni bi leeral na ko mhm. loolu nag mbir la moo xamante ni bi mbir mu am solo la mais en tout cas daal wax dëgg fa yàlla mhm. lii mu wax moom toog jàkkaaroog askan wi waxu ko cib néeg làq tuut ñëpp a ngi dégg mu tudd ne lii la yëf yi demee loolu moom jàpp naa ne mbir mu leer la kon ñi di wax daal dañoo xamul woon parce mbirum son 3 nit ñi moom pareen saa yi pareen saa yi dañ du dañ du xam xam nga état mhm. fii ray si yàlla na yàlla dolli ay leeram moo doo ngi nii bi ñuy bi ñu bi ñu fi bi ñu ko fi joxee xaalis bi 400 million yi si lamin ñëw jox ci kër gi ku ci nekk mu jox la ca lam la cay jox pourtant gars yi bi ñu koyee xam nga lan lañ génne information mhm. jox nañ ko 400 millions kenn yëgut kenn yëgut. te xamuñu nan loolu la ñu véhiculer comprendre nga maanaam diaboliser nañ yëf yi ne te loolu kenn yëgutoon. comprendre nga. waaw <laughs> yaa ngi dégg te pourtant joxoon na ñëpp kii waaw ñëpp amoon nañ. te pourtant gaa yi dañoo taxaw daan ne dafa dem jël ko ci suuf te mu jaal ko ci voie bu légal mais dafa après dafa génn expliquer nit ñi wax ne la muy jël trésor la ko jëlee nii la yëf yi demee nekkul ab saak bu ñëw yenu ñëw dugal ko ko def nii wag naa <laughs> comprendre nga mhm. moo tax pare pareen saay day baax nga expliquer aussi tamit nit ñi waaw jàpp naa ni mm-hmm. li mu def ni daal kii la voilà ngi noonu mm-hmm. merci beaucoup di leen jaajëfal bu baax a baax Souka Mbaye ah, ah. tey nag laa indi loon di jaajëfal di nuyuwaat ma jigéen bu baax a nga indi gën a neex mooy lu ñu fànk kenn du ko jeex te dangaa dem fa mu fa mu amee nga jëlee ko fa loolu te defoo ko xuusoo ko jërëjëf na yaa ci liggéey bi